maanaam daal xol bi moom mooy mooy mooy def mooy tax nit ki nite. nite. waaye mais xel tamit su ko jëfandikuwul du du nite. waaw c'est parce que xol bi mu ngi jóge ci xel xol bi ci xel la jóge parce que xel bi ak foi bi ñoom ñoo daje pour former xol bi. sa sa sa xol. na sa xel ak sa res. sa res ñoom ñooy daje ñoom daje pour former xol bi. noonu la ko yàlla bindee. ñu tuddee ko la lumière de vie. lumière de vie. waay xool bi moom mooy lumière de vie suñu amoon tableau sax ma mën na ko kii. mu gën leer waaw. Khalilou euh, Khalilou Mansara yow euh, yow yaay kan. bon je le messie. le messie. oui hein. oui. le messie mooy. ki yàlla yónni pour préparer le jugement dernier. yow yàlla da laa yónni pour nga waajal yow man waaw. ma ah. ne <laughs> dégg naa <laughs> dégg naa ku ne maa koy initié bon léegi <laughs> kon loolu mooy jugement dernier xanaa soreetut. 32 ans. fii léegi fanweeri at ak ñaar. si la ñuy yomal xiyam di am waaw. fanweeri at ak ñaar ak ñaata weer. non mënaguma joxe kii bi parce que il faut ma toog ba commencé. aywa donc ñu ngi si 2018 waaw. 2018 boo si yokkee 32 muy ñaata. 2050. kon àdduna mi ngi war a tukki 2050. oui. Laye Ndiaye de moo ne ci caméra bi fi mu toll nii. aussi taxaw mënatu ko parce que 2050 moom soreetul te Laye Ndiaye foogoon dina dund roxoy mboj 2050 moom soreetul sa sa yi ngay def yëpp euh, bon léegi euh, Khalil Mansaré mhm. yow fan nga teg ne àdduna dafa nar a tukki 2050. Alif Lam Mim ou sinon sama rencontre ak borom bi. si Alif Lam Mim ak sa daje ak. suñu borom bi léegi si Alif Lam Mim foofu yan terte nga yan leeral nga ñu si jox. d'abord lan mooy Alif Lam Mim qu'est-ce que ça veut Alif Lam Mim c'est avant la vie la vie et après la vie. mooy alif bi mooy avant la vie. waaw laam bi mooy la vie. waaw bi mooy après la vie. waaw alif di alpha beta gamma. mais non boo wax beta gamma yaa ngi dugg ci alphabet grec. parce que alif laam miim alif laam miim mu ngi ci alphabet grec boobu. waaw sama moo remplacé alphabet grec bi. arabe ci grec la jógee. Ah, avant c'était c'était les Grecs yonent bi sallallahu alayhi bi mu ñëwee il est arabe il est venu avec la langue arabe il parlait en arabe il s'appliquait en arabe il écrivait en arabe donc le Coran moo tax ñu bind ko en arabe. ah loolu yëpp xam nañ l'arabe du leer bi c'est pas la lumière mais ce sont les paroles de Dieu. waaw loolu xam nañ ko. moo tax yàlla nañu nañu euh, reconvertir toutes ces paroles en toute langue donnée en toute langue existante même celle des muets de sourds. loolu fan la ko yàlla wax ci téere bi. non man seet euh, kii la bu may bu may wax te ci bi téere bi sax. soo ko liiree ba liir ko di nga ko di ko kii. fan la nekk ci téere bi. man man jànguma jànguma alxuraan. mais dinaa la fi décrire lu bare. Ah, mais nan ngay ñàkk yow jàngoo alxuraan ba pare di wax ay waxu alif laam mim. loolu noonu nekke alif laam mim alxuraan ma la ma ne une fois de plus je suis un savant Dieu m'a fait savoir. savant mooy borom xam-xam nga. borom xam-xam je sais que personne ne yow xam nga lu kenn xamul. waaw parce que boo nee. xam nga àdduna kañ lay tukki. waaw loolu moom xam nga lu kenn xamul. waaw mais àdduna day kañ lay tukki. waaw léegi beneen bi nee nga si alif laam mi mais alif laam mi moom leerul mais nag nee nga ak sa daje ak borom bi borom bi kañ nga daje ak moom. <sighs> sama première rencontre ak borom bi c'était en 1998 nga dajeeg yàlla. foo leen dajee. doxuma dajaak moom. Mhm. mais il m'a euh, ramené. mooy. maanaam dama dama ko uyu ji. yow danga nga dem wuyu yàlla danga nga riñaan daal. dama riñaan. fan nga jóge bi ngay riñaan. fii ci suuf. fan nga ne woon boobu. parcelle bi. parcelle Assainies nga riñaanee. dem wuyu ji borom bi bi ngay riñaan lan lan nga war. bi ngay dem waruma dara. maanaam kuy dajeek borom bi mhm. say réunion di outil ji borom bi c'est pas toi qui c'est pas toi qui qui qui se mais c'est c'est l'âme et l'esprit. mais yonent bi dafa waroon alburaax. déedéet mhm. de plus. leeralal loolu. waaw yonent bi sallallahu alayhi dafa tëdd a gént yàlla won ko mu war a dem ba fi mu war a egg mu taxaw fa lu fekk si ko jox ko liñ koy jox ci gént googu kon lépp gént la képp ki daj ak borom bi ci gént ngay kii parce que borom bi du la fekk si waaw mais yonent bi wax nañ jot joge na euh, Madina dem euh, jóge na Màkka waaw dem euh, Jérusalem. waaw Baytul moom si boppam nee na am na yu mu gis foofu. moom fa ah. après mu jóge foofu. dem wuy ji la ah. mi ngi war alburaaq. loolu yëpp alburaaq fu na ko bind. aussi ay kii ay xisa ay ay ah, kii baa ngi nii. alxuraan. lii mooy dëgg. les paroles de bor euh, yonente bi lépp lu muy wax lii la. hadis yi nag dégg al yi man hadis la ne. non hadis hadis moom je ne peux pas compter parce que kenn kii wu ma ci. yow jàngoo hadis. non kenn kii ma ci sax kenn joxuma ci dara. yow si alxuraan lañ la jox. lii la Bible. bi lan la Bible la Torah bii c'est le Coran. bii c'est le Coran mais yow jàngoo alxuraan. jànguma alxuraan. waaye léegi dañ la ko sol wala. dama la koy sol sax yow soo bëggee. da nga ma koy sol. waaw soo bëgg naa su ma bëggee lal kay bëgg naa. waaw sol ma alxuraan aywa. te dinaa la ko defal léegi suñu a léegi maa ngi déedéet léegi da koy def lii téléspectateurs yi ñëpp di gis. Oh, mu ngi te demain waaw soo bëggee sàmm naa la tey nii tegal. auzu billaahi mina shaytaani rajiim laa hawla wa laa quwwata illaa billaahi al-aliyyil aziim. bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin arrahmaani rahiim bisimillahi rahmanirahim yaasin wal qurani hakim innaka la minal mursalin ala sirati mustaqim tanzir wa ahsin wa ahsin sura kawma ma sira abahu xafu xafilin laqad xakakal ala sharri fa la yabsirun wa artahum amnam tanzir la yuminuna inna ma tanzir man ittaba asir wa qashar shiqu bi mafirati wa shi karimin لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في سماواته قال ما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الله بين أيديهم ومن خلفهم ولا يأتون شيء شوف سهل نصي السماوات والأرض ولا يأخذه إصدهم قل أولاد لا إله الموحد والشهادة الرحمن الرحيم قل أولاد لا إله الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر أمر شكر قل أو خالق البر المصور وأصنع سبيل الله ما في السماوات وأقوم العزيز الحكيم لله ما في السماوات والما في الأرض إن تدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يخصكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعجب من يشاء والله على كل شيء قدير أمانا رسول به أنزل إليه بمؤمنين kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na rabbana wa ilaykal masih la khalifu la khunsan wa la khala wa kasaba wa la tasaba rabbana la tuhna inna sila aftana rabbana wa la tuhamilna takatal ta mawlana fansurna ala qawmi kafirin Allahu akbar léegi alxuraan bi sol na ma ko. waaw. Euh, qu'est-ce que rien. tu n'as rien peut-être dina ñëw après. non non. Hmm. tu as quelque chose. quelque chose oui, tu dois sentir quelque chose. oui peut peut-être ça dépend.